parce que li dañuy bañ li dalon Basi Basirou fay euh, dalane parce que bi faté ñu faatee Basirou Faye dañu ne tay ki la bu suba ñu ne ki la jusqu'à présent xamuñu kan la euh, véritablement loolu motax ñu bëggoon a euh, marché pour que justice soit faite pour état baña protéger kenn pour dénoncer ñi def loolu.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 benen bi ci dess moy question des bourses mhm. ndax étudiant bi maigre bourse am la am as bourse siñ koy fay muruta tok bañ koy amel ñaari weer ba muy xeex eh, génn ci mbedd mi di tal ay pono pour ñu doko ko fay mhm. parce que léegi seetlu nañ au début dañu ko daan fay chaque le 5 du mois mais dañuy dem ba légui dañ lay amel ñaari weer ba paré ñettelu weer bi ñu fay la ben donc loolu dañu bëgg mu jeex chaque le 5 du mois ñu fay ko parce que fallu sen lim doon réclamer également ñu démentir leen lo xam gis nañ yenn autorité yi ko wax ñu ne dañ doon rek da doon réclamer mois de mai ba le quinze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 Nous nous réitéré engagement parce que première fois nous nous le président Baye euh, cette fois ci parce que en phase avec la coordination nationale des étudiants de Saint-Louis euh, du Sénégal Nous départ du ministre ministre de l'intérieur le ministre des finances le ministre des forces armées

kon ñun buñu nekké fi fii doomu baadoole ñoo nekk ci université yi au delà de ça jappalé wuñu ñu ñuy ray motax ñu bëgg seen démission pour ñun luñu mëna déllu ci classe parce que luñu mëna am réclamation bi tok nekk ci talibé talibeeg yooyu taxul ñu dem Saint-Louis taxul ñu joggé suñu kër dem ba euh, Saint-Louis à centaine de kilomètres de chez nous kon luñu bëgg jang moo ñu ko gënal té li buñ ko réglé ñom ñi ngi ñu wax nañ déllu ci classe yi mais pour ñu déllu ci classe c'est simple nañ dañoo tek négociation ñun liñ bëgg nañ nañ répondre lool ñun ñu déllu delluwaat ci classe jang jàng